Euh, je ne vois pas que euh, Aminata Touré warna jox bopam sañ-sañu di dicter Macky Sall ndax dafay toog APR wala du fa toog. Mhm. parce que quand même moom nekkatul APR Aminata Touré euh, yonam nekul ci parti -hmm. donc par courtoisie je trouve que yonam newu ci tay Aminata Touré meun na dox ba yag ni mu am problème ci mouvement boobu créer ce serait vraiment maladroit que muy Macky Sall wala kenen di ci wax naan Aminata Touré ñun xam nañ ko xamoon mouvement bi dox wala na C'est ce serait maladroit mooy li ma la wax compétition politique dafa metti ba nga xam pour nga yem fi nga am élégance am courtoisie c'est pas toujours euh, donné à tout le monde. Mhm. mais pour man euh, Aminata Touré lépp lu mun a wax ci bilan Macky Sall on est d'accord que am na ci sañ-sañ je ne dis pas que ni lu ci wax la mais am na ci sañ-sañ pour apprécier le bilan d'un président de la République du Mais elle est comptable aussi du bilan. Hein et aussi en même temps il est comptable. Mhm. Tellement comptable d'ailleurs qu'il y a des dossiers même judiciaires yo euh, on sait que le euh, conseil économique social environnemental tout le monde se rappelle mok Aminata Tal, classe classe parce que moi, dafa budget il Aminata ne il y avait des problèmes il plainte amti, ba dossier mi mais euh, à chaque fois di wax ni amul qui bi nga mais loolu ñoom ñëpp dañ koy wax waaw <laughs> rapport euh, cour des comptes ñi épinglé ci gis ah, dañ ma <laughs> pourtant ñu bëri épinglé mm. rapport IGE rapport cour des comptes voilà kon euh, que de toute façon euh, il peut pas y avoir deux vérités par exemple ci budget entre moom ak Aminata li raison ça veut dire qu'il y a un problème là-bas donc euh, génn ne man defuma dara kenn mënu ma topp ci dara lolou ça n'engage que la personne parce que ben magistrat du génn dila wax ne def nga dara parce que suñu instruire dossier bi ba wola ba procès war am bobu la xam nak yow def nga dara wala dit kon nak li ci dess yëpp avant bobu mhm. euh politique la hein donc euh, côté boobu euh, mi ngi non mais surtout elle est comptable de du du bilan. bien sûr du président Macky Sall man bu yàggul am na plateau ma dem ma don wax ne Aminata Touré boo ko

ci li nga xam moy sortie yi mu doon def ci lañu profito ñu nekkon mom bokatul ci lenn parce que que ça soit ay waxtaan bi nga xam ne rek daan nañ ko sékk ci euh, Benno bokku Yaakaar duñ ci gis Aminata Touré donc euh, lool moo tax ba. mais surtout que ñëw na ba assemblée nationale. kon def na campagne. Mm-hmm. ba assemblée nationale kon kon kon kon eh, kon kay gennul mo porter won liste euh Benno bokku Yaakaar di waaw ba dem assemblée nationale tok fofu di xaar poste présidente de l'Assemblée nationale mhm. donc jusqu'au dernier moment elle était là-bas et d'ailleurs suñ ko un poste président Assemblée nationale est-ce que dina génn. non mun na am eh, eh, heure bii nii sax dina nekk ci benn bokk yaakaar. mais voilà suñ ko joxoon poste ah oui tout le monde sait maintenant que ni poste boobu frustration tout le monde sait ça. loolu moo indiwoon malaise bi ci benn bokk yaakaar. voilà Donc, am kon su un président Assemblée nationale nga xam un numéro 2 de l'État kon dana fa bàyyi loolu di ànd ak euh, euh, Pastef d'accord pour ñu teg li nga xam ne kon kon loolu. Mhm. mooy wane ni euh, carte yi ñoom dañ koy selon seen calculs politiques. donc bon déglo, discours Aminata Touré contre Ousmane Sonko en particulier ci campagne bi ah Duma mhm. débat ak parce que nangam ak nangam xam nga koku légui su taxawé légui, légui nak lo wax Ousmane Sonko presque mu défendre ko. Mhm. alors que ci campagne bi. on se rappelle des des dossiers à chaque fois suite Beauté bu ñu waxee. waa hmm. APR bu tontu. Euh, surtout coalition Benno Bokk yakar Aminata Touré lañuy ñuy jox kaddu gi. Wa, mais léegi gis nga li mu wax ñepp xam nañ ne dañoo tejj Ousmane Sonko pour des raisons politiques mais euh, deful dara affaire dossier bobu nangam nangam mais mom lool doon position xana ci campagne bi. <laughs> que mi ngi doon wax ne man ko xamni waxo waxoogoo ñu def suite bouti man du ma discuter ak yow. <laughs> waaw xoolal loolu. donc donc pour te dire mais il faut simplement se dire que Amina Touré bi muy wax lool bobu temps mi ngi Yaakar, que ni dafa war jouer rôle bobu pour que après ñu récompenser ko par une position maximale. donc on nañu ni des hommes politiques ils changent de discours selon selon camp bi peut pas généraliser mais justement nous avons une am élégance courtoisie pour respecter ces principes yombul mhm. yombul euh, mais on voit que c'est très difficile et dans l'histoire politique dans le monde entier Il y ay benn benn rek mais à quel prix d'ailleurs à quel prix ma exemple euh, il y a des gens qui ont démissionné même ici au Sénégal il y a eu des gens qui étaient dans des positions confortables, etc., qui, par un désaccord politique, ont démissionné. Nous avons sargal. Euh, euh, ay sargal. mais souvent kenn du leen faale parce que nit ñi gëmuñ sax ne nit démissionné. mën na démissionner privilège Moi, souvent du je me je me rappelle euh, cas par exemple France que j'avais suivi parce que comme c'est un environnementaliste Nicolas Hulot avec Macron Nicolas Hulot dafa jàppale Macron parce que Macron da ko wax ni côté écologie et tout li ngay li nga bëgg lool lay def mu il ak mom def ak mom ay campagne defal ko ben côté environnemental yépp ni Macron lool la jël utiliser ko ci campagne am côté écologie transition écologique. Hmm. xam nga def ko ministre de l'écologie et de la transition énergétique etc. mais biñu dawalé ay 6 mois mu gis Macron commencé bàyyi vision. lu mu lu mu tracé mu génn démissionné il avait les larmes aux yeux je démissionne parce que je ne veux pas cautionner une politique environnementale qui nga xamné ne du mom la d'accordone Macron démissionner mhm. donc lolu mais comme on le dit en Afrique hmm, c'est rare de nga dis nit fi démissionner pour des convictions hein, des convictions euh, personnelles dina am nak boko topé ni di nga gis mhm. mais kon nee la façon de faux politique c'est euh, niñ koy sans éthique sans valeur la valeur prix. D'accord. Imam, dañuy wax ci euh, en même temps.